yàlla na ko fi yàlla bàyyi mook njabootu mam Seydil Xaaji Malik bi yëpp noonu lañuy ñuy nuyoo itam sëriñ Muntaxa Mbàkke fa tabaarakallaahu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla moom itam moom sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal ak njabootu maam Cheikhul Xadim bi yépp noonu la ñuy nuyoo itam sëriñ seex Tidiane Niass ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla yokk dëgëral ak mbooleem njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Niass gépp noonu lañuy ñuy nuyoo itam Serigne Cheikh Tidiane Seck ca ba ak mbooleem njabootu maam ëmmëri mëri ngoone ndaag gépp ca cene ba ñaanal leen ñoom itam yal na leen yàlla yokk dëgëral ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc fii ci ndakaaru nuyu Cherif Abdoulahi Thiaw Laay ñaanal ko yàlla moom itam yàlla na ko yàlla yokk dëgëral ci darajey sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaanal sunu mbokk itam ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bitim réew ñu di leen tuddee immigré waaye itam olof di leen wax mudu moodu ñoom ñëpp ñu ñaanal leen yàlla bu baax yàlla na leen yàlla yokk dëgëral sunu mbokk sénégalais ya fa nekk sunu mbokk gambien ya fa nekk ñoom ñépp ku ci nekk jamono bi yaa ngi toog sa kër ndax feebar bi nga xam ni moo lëmbe àdduna ñoom itam ñu ñaanal leen yàlla bu baax yàlla na leen yàlla may wér ñamu dal yàlla leen yàlla may wér ñamu dalagul yàlla na leen yàlla musal yàlla na ñépp delluwaat ci activité yi ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam wàcc fii ci réew mi ñaanal waa senegal gépp kaa yi ñu fiy dégg yàlla na wàññeeku yàlla na nu dem ba ñëpp wér yàlla na ñëpp delluwaat ci activités yi ci darajay sayduna muhammad alayhi salaatu wa salaam yàlla am na ko mën na ko te yàlla tëlewul dara yàlla tëlewul dara moom rekk mooy buur boo xam ni xaadirun ala kulli shay'in moom yàlla moom xaadirun ala kulli shay'in yàlla daal tëlewul dara waaw comme moom yàlla nag tërewul dara nan ko ñaan moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu jàmm jële fi balaa bi ñëpp wér waaye itam ñëpp delluwaat ci activité yi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax naa la ko démb nee naa la yàlla mooy wane boppam yàlla mooy wan nit ñi ni leen may yàlla man yàlla yàlla yàlla mooy wan nit ñi ni leen man may yàlla ñàkk gi mu ñàkk yëg boppam ci société bi moom yàlla nga xam ni nga xam ni gisatul boppam gisatul boppam moom yàlla ci société bi nit ñi génnee nañu ko moom yàlla palaasam ci société bi lu waay di def léegi ci jamono bii danga nga cay yàlla ba mu set nit ñi seen dogali bopp la yor gëmatunu yàlla yàlla amatul palaas ci société bi moom sunu boroom mu dem ba yëg ni amatul palaas ci société bi moom yàlla mu ne nag xaaral ma wan leen sama bopp bi nu yàlla di bind di nu wàccee ci àdduna bii li tax mu binduñu moom yàlla mooy pour ñu jaamu ko wa ma xalaqtul insa illa li yaabuduun yàlla nee na binduma nit ak jinne mukk wàcce leen ci àdduna bii lu dul ñu jaamu ma yàlla nee na li ma bëgg mooy ngeen jaamu ma jox ma li ma moom wan ma ni yow yàlla yow yaay yàlla jaamu ma jaamu gu sell te du ngeen ma booleeg dara lii laa bëgg man yàlla li ma bëgg man yàlla mooy ngeen jaamu ma te du ngeen ma booleel dara waaw yàlla dafa bëgg ñu teg ko palaasam bëgg gi mu bëgg ñu teg ko palaasam moom yàlla moo tax mu dinañu wan boppam nañu tuubaat joxaat ko sunu xol tàllal ko suñuy loxo ni ko yàlla ñun ñoo la tooñ ay boroomi bàkkaar lanu ñun de ay jaam lanu yoo xam ni ci tooñ la lanu dëkk ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa taala jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc bu ko defee mu wàccee yërmandeem ndax yërmandeem yaatu na sa maam Cheikh Seydil Xaaji Malik nee na wa rahmatullahi kullal xalqi qad wasiat min fajirin wa mutiin zahidin baari Seydil Xaaji Malik nee na yërmande yàlla yaatu na ba ñëpp a ci xaj ñëpp a ci xaj yërmande yàlla yaatu na ba ñëpp a ci xaj waaye nga gis ni àdduna bi dañu dem ba yëgatunu yàlla nit ñi faaleetunu yàlla li yàlla santaane defuñu ko julli gii ñu yàlla sant am na ñoo xam ne duñ julli am na ñoo xam ni buñ jullee lundi mardi duñ julli mercredi ak jeudi vendredi li ñuy julli am na ñoo xam ne respecté wuñ ko saa yuñ ko sentiree lañ koy def am na ñoo xam ni ba nu gëjee julli xamoo kañ la léeg-léeg nit naan la man bu ma taxawee di julli day mel ni sama yaram bi dafa diis duñu julli bu jàkka ji dee nodd ñu di ko dégg mais taxul ñu jug di julli dunu julli joxuñu yàlla cëram takat sëriñ Tuubaa Mbàkke waxoon na ni képp koo bokkal di lekk te xam ni du julli boo mënee changé bool changé bool sukki feneen sëriñ <laughs> Tuubaa ku fonkoon jaamu yàlla la daf ko daan wax Sëriñ Tuubaa ku fonkoon jaamu yàlla la moo tax mu daan wax ni man Cheikhul Xadim sama ñëw gii ma ñëw ci àdduna dara sababu ko lu dul dama ñëw ngir beesalaat li fi Seyduna Muhammad bàyyi woon maay ki ko wara a beesal pour nit ñi déggaat ko lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul garra wa inni ahmadu Sëriñ tuuba daf daan yëg yàlla mënoon a jaamu yàlla digganteem ak boroomam dugalu ci dara sëriñ tuubaa nanguwul woon bokkaale sëriñ tuubaa nanguwul woon caaxaan daan na wax ni tuubaa gii ñu ne waaw mbàkke mu ne mën na laa sori lool fekk jege na la waaye mën na laa jege fekk sori na la lool il faut ñu delloowaat sunu xel ci yàlla il faut ñu jéem a bëgg yàlla dugal ko ci sunu xol te def santaane yi mënu sant moom yàlla mais dem nañu ba société bi yëgatunu yàlla waaw dem nañu ba yëgatunu yàlla bàyyeetunu ko xel te mag ñi daan jaamu yàlla ba àgg foo xam ni kenn mënula koo wax Seydil Xaaji Malik nee na daan naa julli ñaari rakk fajar ju nekk ñu ne ko alaaji Malik ñaari rakk yi ngay julli yan ñaari rakk la mu ne première rakaa damay jàng fatiha baqara ba Mariam kaamil bi xaaj deuxième rakaa ma jàng fatiha Mariam ba naasi kaamil bi jeex jàppal ni guddi gu ne alaaji Malik kaamil la daan naa fi kaamil bu sëlmalee tombeek jàkka ji naan naa jàkka ji naan asalaatu xayrun minan nawmi alaaji Malick yeesalaat njàppam dugg ci jàkk ji julli suba bu sëlmalee lal mbalaanu wadifa bi aynil xaq gi di jolli bu ngoon bu suba jotee alaaji malik nekk ci daara ji di jàngale bu ngoon jotee borom xam-xam yi rang di laaj masala yi alaaji Malick di leen ko faram fàcceel wal muskilaatu ida azzat maaqiduha yaxulluha wa lisaanu alqawmi maaxuudu mag ñi li leen yàlla jaral xamoonu mu mel mais ñun amuñu jotu yàlla ku ci gis mu commencé julli am na xaritam bu génn àdduna ku ci commencé am sa xarit bu génn àdduna nga estati ko rib commencé julli da ngay tiit sunu jaamu yàlla période la bu koor gi jotee da ngay yaakaar ne yonent bi Sénégal la juddoo ndax nit ñi ni ñu ko joxee gëddëm koor gi koo gis mu ngi seex soccam koo gis mu naan la subhanallah yor kurusam di sellal am na ñu tàmm jëw ñoo xam ne même bu koor gi ñëwee mënuñoo bàyyi jëw léeg nga dégg bëccëgu wooru koor ku war a jëw dem ba naan yow kay damaa woor bàyyil ba ngoon rek yow kay boo ndogoo ñëwal sunu naanee ndox rek ñëwal léegi jàpp nga ni yow foo ndogoo war ngaa jëw ba keroog xëdd di jot waxuñu waxuñu guddi koor waxuñu bëccëgu koor weeru koor la lañu wax bi nga xëddee ba bi ngay dogee ba après ndogu lépp ci koor gi la bokk lépp ci koor gi bokk am na ñu amee bor ci koor gi te koor gi li ci des bariwul te fas ñoo fay yab yàlla am na ñoo xam ne du ñu julli xamuñu ko am na ñoo xam ne jàpp nañ ni àdduna daal li fi nekk mooy sañse yor sa téléphone di def say sinap di wangeetu di wane say taat di wane say ween mais looloo fi am di wane say cir benn waliyu bu baax daf ni woon am na jigéen ñoo xam ne du ñu jur ku baax ñu ne ko yenn jigéen la mu ne bépp jigéen boo xam ne booy dox ci mbedd sa ween yi góor mën na cee teg bët parce que nee na am na benn ngelawu virus boo xam ni feebar la bu bon waxuma la feebar bi rek mais bu la duggee sa naq bii dootu jur ku baax te léegi jigéen ñu bari li ñuy tiitaroo mooy seeni ween jigéen ñu bari li ñuy tiitaroo mooy di sinap di di di dungulu di wangeetu di lemu pour pour wane sa forme di di di di lemu am ñoo xam ne seeni taat kese kese kese la ñuy photo di wangeetu koo ci gis muy def vidéo di tourner pour wane gannaawam moom daal kanam gi intéressé wul nit ñi mais foog ñu wan la sunu gannaaw gi ni mu mel nit ñi di am pli am góor ñu ñàkk fayda ñuy am plaisir ci yow ñu lay bindal bàkkaar bi yow jigéen nga war a tëraayoo sa loxo ndeyjoor bi ëllëg ci bàmmeel yàlla ni la këpp këpp dama bëgg nga wax ma lan moo tax nga jëloon sa cër yi exposé ko ci àdduna bi ba góor gu la lewul sax amoon ci yoon am na ñoo am na bu njëkk ween jigéen daf ko daan takkal sitin yamu ci ba pare sol loo xam ni doo ko teg bët mais am na jigéen ñoo xam ne seen couleur ween yi ñëpp a ko xàmmee parce que chaque jour mi ngi ci bitti dul dara wërsëgu jàmbur nga yor ñaan nga yàlla am jëkkër am doom sa doom jooju daa war a nàmp ci meew mi ko yàlla dencal ci weenam nga jël magasin moo xam ne yàlla alalu jàmbur la ci denc mais di ko exposer ci bitti di ko wan nit ñi yaa ngi tooñ sa doom ju juddoogul loolu rek ngay gis koo ci dugg facebook am la muy tiitaroo mooy ay photo yu bon ay photo yu sex def lu bon te mbokk yi dee gii bis buy ñëw nu mu la fekkee la yóbbu dee amul su taxawal defaruwaat ma doog laa jël dee amul yow jekk-jekkalal ma doog laa jël wama tadri nafsun maza taksibu gadan wama tadri nafsun bi ay ardin amul kenn ku dee di jël si di la may nga pare xoolal bu la fekkoon ngay naan sàngara ba nga sexee biteel bi la lay rey bu la fekkoon ngay dorogewu fa ngay dorogewoo la lay rey bu la fekkoon ngay baal fa ngay baalee ngay dee bu la fekkoon ngay mooy yàlla ci mooy yàlla gi ngay dee te wax naa ko barki démb am na dëj yoo xam ne ku fa demit part rek ngay def am na yenn deewin yoo xam ni ku ca dee bu ñu lay dëjël parole yi du bari ku àggit patt rek ndax xam méthode bi nga deewee balaa caa nag fexeel ba nekk ci lu baax ba bis buy génn àdduna mu fekk la ci lu baax mais nit ñoo xamante ni bii seen àdduna yépp folklore caaxaan tooñ nit ku la xamul nga di ko tooñ Sénégal dañu mën a tooñ gor sëy ni ko yàlla santaane defeetunu ko noonu sëy te yàlla tax la yàlla waxoon sëy ngir jaamu yàlla seydina aliyin bi muy denc saydatuna fatima fatima di doomu sayduna muhammad aliyun di deretu sayduna muhammad ndax aliyun abu taalib mi ko jur ak abdullahi mi jur sayduna muhammad ñoo bokk ndey ak baay muy deretam ñoom ñaar bi nu àndee ànd ci pauvreté pauvre ñu ànd ci pauvre ñoom ñaar yàlla boole leen lanu am ak lanu amul kenn xamu ko aliyun ba fii may waxee ak yow Fatima mësu koo wan bëtu may doomu Seyduna Muhammad ànd gor nawle te Sénégal gi am na yenn sant yoo xam ne ku ca takk jabar duñu la sëyal parce que barke bi la ñuy jiital nangam laa sant am na jigéen ñoo xam ne sant bi sant yow jàpp nga ni boo leen takkee war nga leen a mën a fobeere la ay karo ñu koy ñu koy fobeere déedéet du ko def am nga jigéen yoo xam ni boo leen takkee du nu fobeere karo am na jigéen ñoo xam ni boo leen takkee du ñu dem marché du ñu la fóotal du ñu la defal dara parce que seen sant la nuy mbubboo jàpp nañu ni waruñoo defal góor dara ndax sant bi nu sant te saydatuna fatima di doomu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ñëpp daan toppatoo aliyun ci fànn yépp wanu ko ni may doomu yonent bi fii am na yenn sant yoo xam ne boo ci takkee jabar da lay leer ni sëy ba du dem parce que barke la ñuy sëyee te barke sëyul moo booy takk jabar te bëgg ku la sëyal te yàlla tax soril yooyu yëpp wëri koo xam ne boo ko takkee moom nekk ko fi naan sama maamay diw moom li muy xool mooy sëy yàlla tax te ñi koy def ñëpp dañ ciy tiitaru maa takk doomu diw maa takk sëtu diw sëtu diw moomu ngay tiitaroo du la jëndali fonde du la defaral salaat de fruits du la foobee reel du la defal dara parce que problème bi mooy yu ci bari jombale na ko boppam am na nu muy demee sax yow yaa koy tarbiyu moom te arrijaalu qawaamuuna ala nisaa'i bi ma faddala allahu baadahum ala baadin wa bi ma anfaqu min amwalihim yàlla nee na góor gu am personnalité góor gu am personnalité ñu ne waaw yàlla mu ne mooy diriger këram jigéen topp ci gannaawam senegal nag li ñu tardeel mooy doomu diw la sëtu diw la ba ma maa takk maa takk sëtu diw sëtu diw maa ko takk non maa ko takk ban sens yàlla daa xam sant yàlla xamul sant xamul judd li mu xam mooy ku koy jaamu seydina aliyun nekk nag seydatu seydatuna fatima ñoom ñaar ñu bokk benn kër yàlla boole leen ñuy sëy ba yàlla dénk leen ñaari doom ku ñuy wax xasan moo njëkk a juddu après ku ñuy wax Ousseynou doog a juddu bari na ku leen di dégg nag jàpp ni Assane ak Ousseynou ay seex lañ du ñu woon ay seex ay mag ak rakk lañu Fatima moo leen jur di seen ndey Ali ibnu Abi Taalib di seen pàpp ñuy mag ak rakk du ñu ay seex du ay seex ay mag ak rakk mais dafa am bis Seydina Aliyun woor Aliyun dafa woor Fatima woor Xasan woor Xuseyn woor ñoom ñépp ñu woor bi nu demee bay ndogu booba faatima ci waañ wi la yendu lépp luy neexal ndogu faatima lijjanti na ko ndeysaan ñu dem bay ndogu am ku taxaw ci buntu kër gi ne man de damay yelwaan lu ma lekk te fii ma taxaw di yelwaan de fii laa ko yaakaaree parce que kër gii lañ ma wax ni ñoom lañuy ñuy askanale famille Seyduna Muhammad te famille yonent bi kat kuy ñaan ba ñëw ci ñoom sañ am yaakaar xiif sonal na ma lool te bu ma reerul de dana metti ci man may ñaan ku may sarax ngir jëmmi yàlla allahu akbar aliyun xool Fatima Fatima xool Xasan Xasan xool Xuseynu ñu xoolante ñoom ñeent ñu ne lii mu wax ni kuy yàlwaan fa nga yaakaaree ngay dem te fii la yaakaaree parce que ñooy deretu Seyduna Muhammad nanu ko jox sunu ndogu lii te continuer sunu koor gi ànd ak yàlla Allahu akbar nga nit ñuy wute nag ñi taalibe ñëw ci seen buntu kër ne laara bi naa naan ñu naan ko may ñu tuuti ba nu pare de tibbal la desit yi mu ñoo xam ne bu nu demee bay jox taalibe du nu ko sarax lu baax sarax bu nu leen digal nag ñu wëri taalibe léegi nga gis ku ñu digal sarax mu yeewu suba teel du jëndi soow taxaw ci buntu kër gi di xaar kum ko jox léeg-léeg nga jëndi ginaar fanaanoog moom boo xëyee wërale ko sa bopp bi lu ma nar a dal nangam nangam musibaak balaaye ëf yàlla jox la yàlla joxu ko ko yow yaa ko jox xam nga ni Seydina Ali mii ak Fatima mii billahi wute nañoo ñi nga xamante ni bii dañuy lekk ba suur fàtte seeni dëkkandoo di xeeñal seeni ginaar muy xeeñ seeni dëkkandoo te duñ ci mos kii de du kii du toroxal taalibe de ñi nga xamante ni bii sarax bu ñu leen diggal nga gis ku jël ñaari guna gura ndeysaan teg ci njeganaay li ma yàlla bu fa sax garab sax laay ragal fanaanoo gura yi boo saraxe ko yenn saa yi nga gis koo xamante ni bi liggéey mais senegal ngay gis façon liggéey yu bon bërki démb laay gis ku jël xaatim dugal ko ci bàmmeelu jàmbur te xaatim bi turu jàmbur lañ ci def jëkkër ak jabar ak ñi ànd ak ñoom ëhlik xaatim bi boo ko allahumma ëhlik maanaam xaatim ba lañ ca def mooy yàlla alagal ñii soit que ñu dof wala ñu dee wala ñu <laughs> loo xam ne ku koy def yëgoo yàlla nga dox ba ci sele ba yoon fekk fa ay nen yu ñu fa teg xaatim ko def ko xaatimu murabba dugal ci turu ci biir ndeysaan kañuy liggéey la mu am ba ñu koy liggéey mayu ko boppam kañuy liggéey la ko yàlla defal ba ñu koy liggéey mayu ko boppam sunu borooma séddale te yamalewul séddaleem nga ni yàlla ni nga séddalee d'accorduma ci moo tax li nga may diw danaa def yitte ba yàq ko te xaatim bu ñu def ci nen danger bi ma nga nekk ca nit dox ba jéggi ko mu toj mën na koo bañal a laal moom mi moom mi ko moom moom mi toj nen bi parce que xaatim yu bari ay dëddale lay doon man damay laaj sëy bu yàlla takk ca aras déranger la ba nelawatoo loo am yaa ngi koy def ci sëriñ pour ñaar ñiy dëkkee xuloo te dëddale yu bon la ñuy def te xam nga sëriñ dafa am ku naan gëw ma takk gëw ma naan sëriñ amul dalaa jàppagul ñaanal yàlla bu la jàpp bis bu la jàppee nga xam ne gàllaaj am na fu nu liggéeyee Seyduna Muhammad ba mu jàpp ko nga toog naan liggéey amul ñaanal yàlla mu bañ laa jàpp nga gis ku takk jabaram nekk ak moom ci jàmm ak salaam ñu juboo bëggante nekk ci jàmm di dund mbëggeel cent mille pour cent xëy xëy ndaw si sawaratul ci jëkkër ji jëkkër ji bu wàccee day mën a doxala toog ci salle bi ba trois heures du matin lay def doog a dugg si néeg bi parce que bëggu yàgg ak jabar ji wala mu teel a wàcc di wëri di wëri di wëri di wëri di wëri pour bañ a gis ak seen soxnaam ndaw si bu nekkee jëkkëram day énervé xol bi day tàng lu ndaw dañ ciy werante dañuy xuloo duñu amante jàmm bu ko indilee añ bi du ànd ak kanam gu belli da koy teg wan ko gannaaw dëddale yu bon yi nit ñi di def nga xam ne tey sa jëkkër bu nekkee France da ngeen di nekk ci jàmm waxtaan WhatsApp déggante nangam sans problème mais bu ñibbisee première guddeem ci defar ndékki gi ngeen di xuloo te Sénégal li tax mënta avancé mooy liggéey yu bon yi ñu lay def ki la koy def booy naaw muy naaw soit que sa yaay ji la jur sax mooy yóbbu sa tur ci sëriñ di la liggéey pour nga fase sa jabar ji wala jabar ji nga takk neexu ko jubóowul ak moom bëggul woon nga takk ko mu lay liggéey pour nga divorcer ak moom moo tax dañoo toll jamono boo xam ne du du saafara yépp ngay sangoo du saafara yépp ngay naan lii nangam nangam patati sangoo ko maa la ko wutal d'accord boo génnee ma sànni ca mbalit ma wala ca seize angale ba sotti bës bouton bi ndox mi jàll dof rek mooy def lu luñ ko jox mu sangoo ko sa waaye dama laa bëgg damaa gis ni kat affaire yi fi mu ne nii il faut kii sama paa bi nekk fee moo ma ko jox neen da koy sangoo ñetti fan saan nga yaakaar ni mais am na mais xel jëriñul lu dul xalaat saafara boo fekkewul fuñ ko bindee xamoo luñ ca talsam xamoo luñ ca def parce que dafa am lu ñuy tuddee tasxiil tasxiil mooy par exemple tey da ngay jël nit ki tasxiir ko ci sa bopp maanaam euh, tasxiir ko ci sa bopp def ko loo xamante ne bi par exemple yow loo ko wax da koy def léeg nga gis ko topp nit di ko jox ay millions lu mu liggéey jox ko bàyyi ndeyam ak baayam te kooku muy jox ay millions kat boo ko tuddoon tey dalay jox bakkanam dalay rey danaan la sama sëriñ bii xanaa dangaa dof te mu jam la paaka gars yi buñ la jekkoo doo wax façon nawtal yii nit ñi di def kenn daa xam nu mu demee te mu jaral leen nag lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne la leen jaral lu ne dangay ngay takk jigéen sax léegi ay mbokki ndaw si di la liggéey pour nga gën a bëgg seen doom déggal sa doom doo ŋaang loo sa lu sa doom wax lool ngay def am ñoo xam ne seeni goro ñoo leen di liggéey jur sa doom bëccëgu ndara kàmb di ko liggéey ndax alalu àdduna yu ñàkk fayda yi pour jabaram jii na ko fase lum la yàqal luy sa problème il faut dire la vérité Sénégal mooy réew moo xam ne ku fi bëgg a avancer del nëbbatu àdduna bi sax laay wax lépp loo nekk del nëbbatu am nga kër nga ni maa ngi koy bëgg am nga terrain maa ngi koy bëgg sa bien yi dee ko nëbb bu kenn xam loo am ñu nëbbatu rek yeneen bi sax bi may génn Makka di dem Madina guddi la génn pour bañ ko ko gis yow nga nekk dof nag loo am teg ci marché bi ñëpp koy xam day nëbbatu nëbb say secret nëbb say bien nëbb sa am am ba pare nag féetewoo patt bi bu la kenn yóbbu am na ñoo xam ne ku nu xam foo jëm doo fa yàgg te yonent bi nee na al aynu xaqun wal lisaanu xaqun sayduna muhammad nee na bët dafa am làmmiñ am am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd day yàqu am na bët yoo xam ni lu ñu tudd day yàqu il faut di la vérité réew mee ko laaj jamono laaj ko ba ko sayduna muhammad di wax booba yi yëpp xewatul ba mu doon wax ni man sakata najaxa ku noppi mucc ba ak seeguñ ci jamono bi réew mi ku nu xam foo jëm doo yegg nitay ñëw Sénégal inversir fi di tabax këram tabax ba àggagul ñu ne feebar na fe tabax ba àggagul ñu ne paralysé na feebar fi feebar goo xam ne nit ñi catu nañ ko tudd nañu alalam léppam tudd nañ ko nga nekk tiitaru kat gisoo jaaytaar buy feebar di dee parce que cat yi la dul àttan koo xam ne loo yor ñëpp gis ko mën a wanewu ni dafay nëbbatu cat baaxul takk ay or fii jaar fii nangam nangam patati patata te doo ñaan parce que ku dul julli mënoo am muslaay muslaay yi bi ci ëpp mooy di julli ku dul julli mënoo am gàllaaj ma wax la ko tey muslaay bi ëpp ci muslaay yi mooy di joxe waxtu juróom yii waaye gis nga Seydina Seydina Ali bi mu xoolanteeg njaboot gi ñoom ñépp ñu ni ko joxeel ndogu gi ñu ànd ak yàlla sidna aliin dajale ndogu mi jox ko kii doon yalwaan ñoom ñu ensonné koor gi amuñu lu ñu xëddee mais dañoo continuer journée bi allahu bi ñu xëyee aliyun ne Fatima dama lijjant ji lu ñu ndogoo Fatima dem di taqale ba une mu am ko ñëw taal ndogu li ñu dem bay waaja ndogu am ku taxawaat ci buntu kër gi même heure dat ni maa ngi yalwaan lu ma reeree yaakaareewu ma ko fenn fu dul kër gi parce que ñii lañu askanale ni ñooy deretu Seyduna Muhammad ma bëggoon ñu dimbali ma ngir jëmmi yàlla ma am lu ma lekk aliyun xool Fatima Fatima xool Xasan Xasan xool Xuseynu ñu xoolante ñu ni ba tey yàlla mënu ko lebaloon démb moo fi nekkaat tey nanu ko joxaat ndogu li te ànd ak yàlla deux jours yoo xam ne lekkuñu naanuñu parce que seen ndogu saraxe nañ ko ngir jëmmi yàlla allahu akbar ndeysaan bi muy woy aliyun dafa bëgg daf ne aliyun aliyun karamallahu wajhahu wa anhu di rabbi ma araahu zuhulu naan uqammisu madxati wa suudahuma daara naimi achilu waaw naan wa yaktumu man aataahu summan li sinwihi maxaafata saarin walkarimu xamulu naan la raabiu islaamin wa saalisu xilfatin wa yaba dunuwal bayt nicma rasulu urabbiu bibni l ammi ammi nabiyina shujaaun mukirrun lil udaati qatulu <laughs> allahu akbar sayidna ali mooy garmi ndeysaan troisième jour ñu ansone gi ba ndogu jot ñu dem bay ndogu am ku ñuy wax asiir asiir mooy prisonnier bu ñu tëjoon ba bàyyi ko moo tudd ci arab asir prisonnier boobu moo ñëw buntu kër Seydina Aliyun ne maa ngi ñaan yéen waa kër gii man kat prisonnier laa bu ñu tëjoon bàyyi ma ma xiif lool te àggaguma fu ma jëm bi ma laajtee fii fan la fi yonent bi ñuy wax mu xam Muhammad dëkk ñu ni ma ñii de njabootam lanu ma ñëw ci kër gii nag ngir yaakaar fi ngeen may ma lu ma lekk ñu dajalewaat lañu ñu dajale woon pour ndogoo ko ñetti fan wax naa la lekk ñu naanuñu xëdduñu te dañoo enchaîné koor gi ñu dajale lañu dajale woon jox ko ko waa ji yóbbu ko ñu enchaîné koor gi bi une heure du matin di jot waa kër gi ñëpp crise ndax xiif waaw akbar ñëpp xam Aliyun xëm Fatima xëm Asan xëm Useynu xëm ku lekkul ñetti fan naanoo ndox waay waay daanu jot na ci yow allahu akbar te ñoom kat li nu tiim ñoo ko moom mu leew leen domb mais yaakaar yàlla moo tax ñu joxe ko <laughs> allahu gii de balaa fee nit a dimbali ko mu tane <laughs> ñii dañoo yaakaar yàlla moo tax ñu tay la seen vie gis nga yàlla boo ko yaakaaree doo sonn dara du la yëngal boo ko gëmee te muy dëgg ci yow lii ñu naan stress sax doo ko am da nga dégg ko naan diw dafa amee stress stress ba luy stress mën ngay amee yàlla am sayduna muhammad di dund stress waroo koo am fii àdduna la bu la kenn teg lu la naqari sa xol bii raxas ko ba mu set dee ko waaye heure boo xëyee di julli ci sayduna muhammad bu fi wut espace booy dencal nit dara bu la dara déranger fii àdduna la Serigne Cheikh Tidiane si neewoon na li la yàlla defal moom ngay muñee li la nit ñi di def te waxam boobu nit mën na cee dund àdduna ak alaaxira li la yàlla defal moom ngay muñee li la nit ñi di def yow yàlla may na la am nga kër am nga oto am nga soxna amoo benn problème paralysé woo dagguñu sa loxo silmaxawoo yaa ngi ci jàmm amoo benn tolof tolof ci sa àdduna léegi nag nit ñi ñu ngi lay xas di la saaga di yàq sa der yow doo xool li la yàlla defal nga muñee ko li la nit ñi di def te bu la junni nit bëggee fukki nit bañ la di la saagaaka di la wax lu bon di commentaire ci yow lu bon Serigne Cheikh Tidiane si nee na boo bëggee nopp lu fukki ñooñu def leen azaka alal ju nekk azaka war na cee génn xanaa bu la junni bëggee fukk bañ la fukk yi di nga ko def azaka noppalu doo ko def azaka loo bëgg doo génnee azaka dangaa bëgg ñëpp ni gongo apprécier la kenn du la critiquer kenn du la xas kenn du la saaga ku mën a am loolu yàlla mi bind sax amu ko unanimité lañ koy wax yàlla amu ko moo ñu ko gën a bëgg moo bind tubaab bi tere ko sàngara tubaab bi da koy naan ba pare du ca yem taxaw ci immeuble am naan la jë n'existe pas yàlla amul amu ko yàlla amul unanimité ñëpp gëmuñu ko ñëpp ànduñoo moom mais senegal rek ngay gis ku xëy bopp bi di metti lu tax daa am lu muy xalaat ñu teg la appareil hôpital naan dangaa ngaa commencé am euh, cardiaque médecin bi ne daa am lu muy xalaat looy xalaat àdduna bii nga xam ni nit ñi li nu mën mooy boo génnee àdduna ñu jooy la deux jours fàtte la nekkaat ci seeni activité bu dee jigéen nga fi bàyyi dana la muñ ba summi quatre mois dix jours bu jàllee mu salaat ba weex tàll ñu naan jabaru diw ji de boo ko xoolee léegi doo ko xàmmee daa nañ day jaayu di day wut jëkkër fàtte na kamu suul bu yàgg bëtamang ci leneen réew mu mel noonu nga fay dund ndoog ñu mel noonu doo yaatal sa xol bii bañ a am stress bu dee dese nga yaay boo xëyee di waxtaan ak sa yaay di xool noo ko bégalee bu dee dese nga pàpp boo xëyee di waxtaan ak moom di xool noo ko bégalee nekk ci jàmm ak salaam boo yoree soxna noonu dara bañ laa metti lu la waaye def nga ni ko may naa la ko jéggal naa la ci xol ba sedd guy bañ a téye dara man damaa jaaxle man nangam man daa man kat oustaz fan yi damaa jooy ba deseetuma rangoñ nangam bo ba ngay jooy ba dee ñun testaté la la rip la suwa daas xaw ma lan ak lan elateer pare nañ ci dundal yaatal sa xol bi dundal sayduna muhammad te yëg ko dara bañ laa déranger mais gis nga bi trois heures du matin di jot kër gi ñépp xam yàlla ni jibril neexul ba neexul waaye waa kër Seydina Ali ñi ñooy ay gor damal nga joxar bil ma waa kër gi li may wax xaaju ko ca kaw ba nu xam ni ñi ay gor lañ jibril départ ñëw jàkkaarloog njabootu Seydina Aliyun gi nan leen yàllaa ma yóbbante ci yéen yàlla nee na wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutcimukum li wajhi llahi laa nuridu minkum jazaan wala shukura inna naqaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira fa waqaahum allahu charra zalika alyawm wa laqaahum nadratan wa surura billahi wajadaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha ala al araiki laa yarawna fiha shamsan wala zamharira kuy tagg yàllaa la dàq tagg te yàlla moo tagg njabootu saydna aliin gi yàlla nee na li ma gën a neex ci li nu def mooy wa yutcimuuna taama dañoo joxe ñam bi nu togg pour ndogoo ko ala am ca soxla allahu akbar <laughs> alxuraan neex na dégg nga yàlla wa yutcimuuna taama ñii kat li ma neex ci geste bi nu def mooy danoo joxe ñam ñam woo xam ne ala xubbihi ñoom dañu ko bëgg ba togg ko mais ki taxaw ñaan leen ko ngir jëmmi yàlla moo tax ñu fàtte woon ñoom bëgg gin ko bëgg loo cay déggee mooy nit booy joxe joxe li nga bëgg nit booy joxe da joxe li nga bëgg di maye yére xool sa armuwaal la ca gën a màgget di may nit xool la nga doyal di ko ko jox nit boo koy jox danga koy jox lu koy jëriñ sëriñ Cheikh Tidiane si daan na wax ni nit boo koy may xaalis boo ko mayee xaalis war naa yëg ni may nga ko xaalis ni ay nit ñi duñ ko def ay yëfit dof lañ lay jox naa toog ci benn jàkk ba sëlmal benn xale ñëw yëkkati juróom-ñaari fooy jox ma ko ma ne ko lii nag mu ne sama yaay moo la ko jox waaw dani ma am yàlla jox la ma ne ko kan moo la jox fooy yi mu ne sama yaay ma ne ko waaw kay fooy yi kay yàlla joxuma ko sa yaay kay mooy joxe ay fooy mais yàlla moom du fekk muskàllaf mu julli ci jàkk ji ba génn mu koy jox ay fooy parce que dañ leen di digal ay sarax naan fooy yi ab oustaz nga koy jox wala jàngalekat wala borom xam-xam wala nangam ku ma jox fooy ay tàgge laa ciy bind tàgge nga dee jox ay fooy ma koy doye mais nag wa yutimuuna taama ala xubbihi joxe ñam mais am ca soxla ànd ak am ca soxla allahu akbar yàlla nee na maa ngi suivre film bi wa yutcimuuna taama ñii dañoo joxe li nu gën a bëgg ala xubbihi ànd ak am soxla premier jour bi miskin lañ ko jox deuxième jour bi yetim lañ ko jox troisième jour asir lañ ko jox allahu akbar joxe ngir jëmmi yàlla jafe na de mbokk yi am na ñu ñàkk ñoo xamante ne bii am nañ ndijaayu milliardaire mbaa papa yi milliardaire mbaa papa yi bari na ku ñuy tudd ci àdduna bi di ko tagg mi ngi ay mbokk yoo xam ni amuñu lu ñu reere suba mais gisu leen senegal ñi fi nekk du ñu dimbali muuma millions yi ngeen di yëkkati di ko jox état di ko dimbali ci corona bi baax na mais la ko gënoon mooy ngeen jox ko seen dëkkandoo yi amul dépense ni Barthélemy Dias def dafa baax te du jullit mais jox nañu leçon ñun jullit ñi yu koor gaa ngi ñëw am na ñoo xam ne seeni activité doxatul liggéeyatuñ te yaa leen tane lu tax yow benn saako ceeb mënoo ko jënd jox ko néew ji doole bi jaamu ci yàlla lu tax mënoo jënd benn gorosu suukar ci sa alal ji yow sa compte banque am na un million te dala leer ne saaku ceeb ak suukar àggul cent mille francs nga am ci tiyaaba bu la kenn mënta wax parce que boo jëndalee saaku ceeb néew ji doole kër ga ña cay añ nekk dix personnes mbaa cinq personnes yàlla nee na heure bu nit ki tibbee da ko ceeb pepp par pepp laa lay fay ci ñuy lekk ci ceeb bi pepp par pepp ak ni nga baree bàkkaar yow loolu du sa arrangement du ngeen dimbali ñi ngeen tane ngir jëmmi yàlla dem ci magasin bi jënd ñetti saaku ceeb xalaat ci koñ bi ñi fi néew doole nga jox leen ko mais loolu mooy yoon mais yor alal joo xam ni doo ci dimbali kenn yàq say doom say doom bi gën a ndaw ay iPhone lay yor sa doom yi ñoo ne ci soirée yi sa doom yi la ñuy way ci grand théâtre yi ñuy baatare mais ba kañ ba kañ léegi nga di kuy tiitaru naan man sama doom ci école yu baax yi lay jàngee bu xëyee suba oto bi day ñëw jël ko mu dem classe bon cest à bu vacances jotee mu dem euh, France wala Allemagne lu mu jàng ci alxuraan jàngul tus li muy jàng amalu ko benn njariñ français fii la yem A boo ca jaamuwul yàlla déega mooy dee dem safara boo jaamuwul yàlla jul sa doom yóbbu ko ca daara ja mu jàngi alquran yonent bi nee na xale bu demee daara bu ñu koy dalal baa bu ñu ko ne a ba ta sa ja xaraf bu nekk dañuy jox yaayam fukki tiyaaba jox papaam fukki tiyaaba doog koo dencal moom bu dee am matagul a am bàkkaar wala tiyaaba ñu dencal ko ko <laughs> allahu akbar parce que bu fekkee xale bi dafa ñëw ci daara ji di jàng toll amagul tolloogul fu ñu koy bindalee bàkkaar waxuma nag dix-huit ans tubaab moo naan dix-huit ans mooy majeur charia xamul dix-huit ans dafa wax ni wa kullu taklifin boo demee ci ibnu achir dafa la wax ni la majeur mooy wa kullu taklifin bi chartil aqli ma al buluuxi aw bi damin aw bi xamlin aw bi inbaati chaari bépp jigéen bu commencé gis règle majeur na bu dee góor bu amee karaw naq majeur na bu dee góor di tëdd di gént am na euh, euh, karaw naq am karaw poqotaan majeur na bu dee jigéen ju mas ëmb majeur nga bu gisee règle la majeur na kii lañu togg jëf mooy bu bind bu defatee tiyaaba dañ koy bind bu defatee bàkkaar dañ koy bind il faut <laughs> il faut ñu góorgóorlu il faut ñu góorgóorlu di dimbali ñi nu tane dimbali ñi nu tane dafa am solo dimbali ñu nu tane nit boo ko tanee da koy dimbali tane nit doo ko jàppale te am na ñoo xam ne ranking boobu mooy dox ci ñoom parce que ñi leen war a dimbali dimbali wuñ leen moo tax bis buñ demee ba jekku duñ leen faale nga am sa jarbaat doo ko dimbali wala nga am sa ta sa sa rakku yaay doo ko dimbali te senegal def defi defal ay jàmbur moo leen gënal defal seen deret ay sàmba àllar ñoo bari ci réew mi mën a tiitaru di dawal oto yi cinquante million te yaa ngi am ay mbokk yu ne ca dëkk ba am problème mu lekk amuñu courant amuñu ndox seen nijaay di jël di di di di jël kalaandoo di fay cent francs di dox léeg-léeg mu dox bu dëkk bi dëgëree te mook sa yaay bokk ndey ak baay mbaa say rakku yaay mbaa say sœur mbaa say frère mbaa sax ñoo xam ne yàgg ñoo ma bokk pàpp mais xam nga Sénégal nag miraasatuñ sa baay dafay bàyyi alal dul jeex ñu jël jabaru sa jabaru papa ji sa papa gënoon a nopp jël alal ji féetale ko ci moom miraas mi du jaar yoon kenn miraasatul dañuy séddale looloo fi am séddale mais miraas amatul miraas amatul léegi bu sa baay deewee ña mag te ëpp doole ñooy aakimoo alal ji rek ñi ci des dañuy perte te kenn du tudd alal ji nag am na ñoo xam ni boo nii mii rek avant ngay àgg ci raas gi ñu mere la doo tudd mii raas tudd miiraas waaw doo tudd miiraas il faut ñu bàyyi loolu xel am ñoo xam ne doo tudd miraas de boo ko tuddee seen jàmm jeex te li fi seen bàyyi bàyyi woon lépp taxawaaloo nan ko teg ci seen loxo waaye gis nga Seydina Aliyun bi nu defee loolu xam nga Aliyun nag day jàmbaar ndeysaan ànd ak saydatuna Fatima ñu takk sëy bi ñu nekk ay jàmbaar xam nga saxaaba yi ku ci nekk def nga loo xam ne bis kenn dootu ko fàtte te li tax nga def ko mooy sa cofeel ci sayduna muhammad saxaaba yi dañuy ay jàmbaar parce que ñoo accompagner woon sayduna muhammad yonent bi bi muy dund ak saxaaba yi bëtam masul xonq parce que Aliyun am na kàttan Ousmane am na alal Omar ñeme na dëgg Abu Bakrin am na xel te ñii ku nu séq nga ñoom moo tax Sëriñ Tuubaa ni boo wayee ba àggal rekk waaye boole ci sama gaañ yi te mooy saxaaba yi ñu ne ko yow Sëriñ Tuubaa loo way ci ñoom mu ne ayaa xaadimal muxtaaru laa tansa saxbahu fa man yansawhum fal madxu madxul muqattaxu Abu Bakrin siddiqu ñu ne ko ala ñu ne ko sëriñ ndax fa nga yem mu ne déedéet zu sidqi wal wafa rafiqu nabiyallahi gaara an ba u ayaa qaadimal muxtaaru sëriñ Touba nee na yow mi nga xam ni yaay way sayduna muhammad di ko liggéeyal sëriñ Touba nee na laa tan sa saxbahu bul fàtte ay saxaabaam ñu ne ko lu tax sëriñ Touba mu ne parce que fa man yan sawhum képp ku dof dof lu way ba fàtte saxaaba yii sëriñ Touba nee na fal madxu madxul muqatta way wi day damm du dem attaaya bu amul suukar kenn du kan naan Serigne Touba nee na boo wayee ba àggal te wayoo saxaaba yi comme ju amul suukar waaw akbar fa man yansawhum fal madxu madxul muqattaw nee na boo wayee ba àggal nee na dafay mel ni way woo xam ni amul attaaya ju amul suukar mooy way ba àggal te wayoo sayduna Muhammad mag ñi danoo danoo bëggoon saxaaba yi bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jaral leen lu ne mu jaral leen lu nekk xam nga Sëriñ Tuubaa bu demee bay wax ni su ma dee way sayduna muhammad bu ma agsi ci turam big bu xonq laa koy bindee ñu ne ko lu tax mu ne parce dama bëgg kuy liir sama téere ba agsi ci turam gis ma bindee ko big bu xonq ngir nga mën a xàmmee ni kii ñu ber ba wital ko bigu boppam du moroomu kenn am bi sëriñ Tuubaa di way Seyduna Muhammad ba agsi ci turu yenent bi amul big bu xonq ñu ne ko mbàkkee nooy def sëriñ Tuubaa laajte ni ku fi yor lañset am ku ne ko yor naa lañset mu dagg ci yaramam di capp ci deretam ci daa gi mu doon bindee di bind turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yëgu ko allahu akbar dañu koo bëgg dañoo bëgg sayduna muhammad di ko yëg moo tax daan na wax ni bi ma tubaab yi jàppee di ma yóbbu di ma yóbbu ci yoon wi la ma yàlla xamal ni lun la mën a teg muñal bisa ngi ñëw danga nga dellu si tuubaa gii te yaa ko yilif allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina allahu akbar bi annani xadimu zil madina danaa yilif dëkk bi mais Seydina Aliyun turam nag dootul fay ci lislaam ndax Aliyun xam nga yaa ngi dégg ngont lu rëy loo xam ne ñi ngi koy wax ngontal Seydina Aliyun nga di ko dégg xam nga ngont loolu xam nga ngont loolu ngont la loo xam ni yaakaar naa yéen ñëpp yéen a koy dégg ngontu Seydina Aliin te ngont li li ko waral mooy dafa am xare bu amoon ci diggante yéeféer yi ak jullit ñi am ci benn waay bu ñuy wax Umar ibnul Wudd Omar ibnul Wudd bokkul woon ci ñi gëm Seyduna Muhammad mais dafa amoon doole am kàttan yàlla may ko kàttan mu am kàttan moom Omar Wudd mën a xeex gëmul woon yàlla bokk ci yéeféer yi mais yonent bi daf daan ñaan yàlla naan kii yal na dem ba tuub ñëw ci ñun ndax bu ñëwee ci ñun ma dinaa yëg ni jàmbaar ñëw na ci ñun xam nga léeg-léeg nga am jour bu nekk Barcelone ba Real ñu naan diw mii de bu nekkoon équipe sàngam dana gën a baax booba yonent bi mu ngi xool Omar bokkul ci ñoom mais daf daan ñaan yàlla Omar tuub dugg ci lislaam moo ko Omar ibnul Xataab la ko daan boole avant muy nekk jullit daan wax ni allahumma aiz al islaama bi ahadal omarayni Omar ibnul Xataab ak Omar ibnul Wudd la yonent bi daan ñaan naan yàlla na bis ñëw ba nu tuub Omar moomu nag dafa amoon kàttan avant l'islam bi l'islam bi di dox aliyun gëm sayduna muhammad di doomam di rakkam Omar ibnul Wudd xare bi am Omar dawal fasam ba ci kanamu jullit ñi ni leen yéen yéen wax ni ku dee ci yéen dem aljanna yéen a ko wax yéen yéen a wax ni inna alladina amanu wa amilu salihati fa lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yéen a wax ni yéen jullit ñi ku dee ci yéen àjjana ngeen jëm yéen a wax ni ku dee ci ñun dem safara ndax yéen a wax ni inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tunzirhum laa yuminuuna xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absaarihim gishawa wa lahum adaabun adim yéen a wax ni ku dee ci ñun dem safara ku dee ci yéen dem aljanna léegi nag ma bëggoon kenn na génn ci yéen xeex ak man ndax seen yonent bi lii muy woote du dëgg Omar ibnul Wadd taxaw saaga Seydina Muhammad allahu akbar Omar moo taxaw saaga Seydina Muhammad allahu akbar ne ko li ngeen di woote du dëgg li ngeen di woote du dëgg saxaaba yi ñépp xam Omar ibnul Wudd ndax jàmbaaram kenn ñemewul a génn mais Seydina Aliyun comme mook yonent bi ñoo bokk deret te deret day rogalaat dafa foor Aliyun ne bëret ne mooy génn Seydina Muhammad naj ko ne ko Aliyun kii taxaw di wax mooy Omar ibnul Wudd saay-saay la ku mas a jàmmaarloog moom balaa cinq minutes liquité na la te yow sama mbokk nga te aliyun yow laa fi amoon ak jaafar jaafar faatu na ma dese la ngay sama deret bu ma sañoon doo dem toogal waaw akbar ndeysaan seydna aliyun taxawaat omar ibnul wudd wër wër wër wër wër ñëwaat joxar bi leen mu ñëw ni leen li ngeen di woote du dëgg seen waa ji lii muy wax du dëgg joxar bi leen ñoom ñëpp saaga leen Seydina Aliyun ne bërët Seydina Muhammad na ca Aliyun ni ko Aliyun bul dëgëranteeg man bopp nee naa la kii saay-saay la ku mas a jàmmaarloog moom balaa cinq minutes lijjanti na la daan naa ñaan sax man yonent bi pour kii ñëw ci ñun bàyyi ko rek mu wax bu sonnee dana dem bul dem mukk ndax yow laa am ñàkk naa jaafar te yéen ñaar ay mag ak rakk ngeen te xare lañ ko rey maa fi des te xam nga jaafar ni ko reyee moom itam volonté moo tax ñu rey ko parce que jaafar day dem xeexi sayduna muhammad jox ko drapeau l'islam ne ko bu mu laal suuf ali jaafar nekk ci digg xare bi am saay-saay bu ko visé comme dégg na yonent bi ni bu drapeau bi laal suuf mu visé loxo bi drapeau bi nekk ci loxo ndeyjooru jaafar bi dóor drapeau bi allahu akbar jaafar ni lu ma yonent bi dénk du laal suuf téye drapeau bi ci loxo gos bi waa ji dóoraat jaasi ci loxo gos bi jaafar replis drapeau bi képp ko ci ay tànkam mu dóor jaasi ci tànk yi jaafar ŋànk drapeau bi ci gémmiñam mu duur ko ci ci ci ci ci ci loos bi jaafar yam fa keneen capte drapeau bi te drapeau bi laalul suuf yàlla toll ca arash yónni jibril ne ko boo demee neel jaafar nii mu def dama cee bëgg na wax lu mu gën a bëgg ma defal ko ko jaafar ni ko jibril boo demee neel yàlla li ma bëgg mooy mu delloowaat ma sama ruugi ma jug xeex ba keroog xare bi di jeex ma delluwaat su ko ci kanamu sayyidina muhammad ni ko am na nu ndam jibril ni ko sa borom nee na loolu mënatul a nekk ku xasa dee doo dekkiwaat bu la ko defalee te defalu ko keneen ñu ne yàlla day gënale te lum defalul sayduna muhammad keneen dootu ko am kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzaqun ila yawmi yubaasun ku xasa dee dee nga léegi nag yàlla nee na dana la dekkil mais malaaka la lay def boole laak malaaka yi ngay doxi mission moo tax yonent bi daan na toog ba mu yàgg jaxfar nit la woon dee ci xare bi yàlla def ko malaaka muy ànd ak ñoom jibril ak asrail ak asrafil nekk ca kaw di nuyu sayduna muhammad yonent bi di téen naan wa aleykum salaam naan saxaaba yi fay leen jaxfar moo leen di nuyu nee yàllaa ko yónni ma ngay doxe mission waaye bi xare bi tare Omar ibnul Wudd ñëw jàkkaarloo gaañ ni leen li di woote du dëgg li di woote bu doon dëgg kenn dana génn ci yéen xeexak ak man waaye ma leen di saaga di saaga seen yonent bi kenn amul fitu génn Seydina Aliin ne bërët Seydina Muhammad di ko téye rek Aliin bif loxo bi génn jàkkaarloo ko Omar ibnul allahu akbar ceet te te te te Omar ibnul Wudd ni ko yow mii génn dama bëgg nga wax ma yow la kan parce que dama bëgg ku ma rey ñu bind turam xam ni maa ko rey présente ma sa bopp ma doog a xeex ak yow cala la Seydina Ali joxoñee boppam ni ko ana aliyun wa nisbati bayna al ira abu imamayni kiraamin barara maay njeganaayu fatimatu bintu rasul am naa ci ñaari doom asan ak useynu sama askan siiw na jaruma laaj waxal leneen allahu akbar booba aliyun yonent bi ñuy torturé di ko saaga aliyun dënn baa ngay bax mënatu koo supporté omar nul wudd ne ko yow duma xeex ak yow ndax sa papa sama xarit la woon te bëgguma laa rey ëllëg di dajeeg moom yow mal xiyaam di am gàcc aliyun ni ko sam ak yow la woon man duma ak yow parce que da ngaa contre Seyduna Muhammad man ma bëgg ko ma bëgg nag nga jàkk nga ñëw jàkkaarloog man bu dee li ngay wax dëgg la Allahu akbar Umar ibnul Wudd ne ko doom mbaa li nga sommi mën nga koo naan Ali ne ko jàkkaarloog Moustapha alayhi salaatu salaam may na ma lu ne bëgg gi ma ko bëgg jaral na ma joxe sama bakkan bu dee li ngay woote dëgg la taxawal ñu jàmmaarloo Omar ibnul Wudd rocc jaasi ji ne ko doom li ngay wax bu dee dëgg la rek woo naa la ci kii Ali ibn Abi Talib rocc jaaseem ñu jàmmaarloo ñoom ñaar Seyduna Muhammad fa nu ko tàntal ma nga tiit moom yonent bi jàpp ni moom day ñàkk Aliyun keroog la Seyduna Muhammad di ñaan ba kaala gi wadd Abu Bakrin nee na may far kaala gi di ko ko tegalaatal muy ñaan tàllal ay loxoom yàlla naan ko yow yàlla maa ngi lay ñaan ya rabbi la tazar ala al ardi min al kaafirina dayyaar rabbi laa tazar nii fardan wa anta xayrul waarisiin rabbi laa tazar nii fardan wa anta xayrul waarisiin yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na lislaam am ndam yàlla bu nu rayee Seydina Aliyun fi la lislaam bi yem ay waay yàlla yàlla bu nu am gàcce tey yàlla na Aliyun gañe Aliyun milaa am ñàkk naa Jaafar Aliyun laa dese mooy sama deret abu taalib a ko jur abdullahi mooma jur abdullahi mi jur abdullahi ak abdu abu taalib ñoo bokk benn baay muy abdu muttalib abdu muttalib mii sama maam maa ngi ko ñàkk bi ma amee huit ans ama samani wafatul jaddi zahanamin wa xaatimin wa ano charwaana zulkarami yàlla kii laa dese bu nu ko gañee fii la lislaam bi di yem rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisiin yàlla yow miy joxe ndam di joxe victoire di kattanal sa nit maa ngi lay ñaan aliyun mi yal na am ndam <laughs> Aboubacry nee na Moustapha day ñaan bay kët-kët dafa mujj supp maanaam dafa mujj sukk ñaari bëti óomam yi samp ay tànkam keroog la Seyduna Muhammad di ñaan ba dënn bi di kër kër ndax daa xam Aliyun ki mu jàkkaar lool kan la rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisiin yàlla maa ngi lay ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla buñ gañe Aliyu bu nu ko gañee fii la lislaam bi di yem de moom la nu am mooy sunu ndëgër laay ba pare moom laa bokkal deret te bu nu ko reyee danaa wit ci àdduna yàlla rus ci ba Aliyun gañe ndekete Aliyun nag Umar ibnul Wudd bi nuy xeex poussière bi jug na ba kenn mënatul a xàmmee nit ak moroomam poussière bi jug kenn gisatul kenn xeex nanu ba jaasi ya damm ñu jël ay bant xeex ba bant ya damm ñu jël ay xeej jamante ko ba xeej ya damm poussière bi jug kenn mënatul a gis kenn nit ñi ne tekk côté Omar ibnul Wudd ñu ngi yàkkamti tekk gi dal ba nu xam ndax Omar moo gañe jullit ñaa ngi tiit yaakaar ne rey nañu Seydina Aliyun ndax am na ku dee mais xamuñu kan la bi poussière bi di dal poussière bi di dal poussière bi di dal ba nu mën a xàmmee nit ak moroom ma ca la ñu gis na Aliyun yëkkati jaaseem ca kaw taxaw ci kaw dënn Umar ibnul Wudd naan laa ilaha illa allah allahu akbar ndekete booba faat na Umar ibnul Wudd Seydina Muhammad bëgg santaat yàlla ne maa ngi leen di ñaan fële mu ko rayee ba fii ma toog di ñaan yàlla bu fi aliyun laal suuf nañ ko tingom bu mu fi laal suuf ñu tatagal ko ndax li mu liggéeyee lislaam tey keroog la ñu tingom Seydina aliyun cëppil ko ci kanamu Seydina Muhammad njool màkk fuun ko ndeyjoor fuun ko càmmooñ ni ko à part sa tey jii waxuma la yow mais xeetu Seydina Muhammad ku tëddoon di nelaw sax jaamuwul yàlla bu la yàlla fayee boo réservé mandat bi boo réservaree mandat bi kooka xaj na ca sax pour dem àjjana billahi aliyun li nga liggéeyal lislaam tey jii sayduna muhammad foon ko ndeyjoor foon ko càmmooñ ne ko gannaaw sa jëfi tey jii mënatoo def lu la yóbbu safara allahu akbar saxaaba yaa ngoog ñoo jëloon seen lépp jox ko yàlla di xëy di gën di bëgg sayduna muhammad yàlla na nu ko yàlla doollee soppaloo yàlla na nuy xëy di gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam mbokk yi mi ngi noonu waxtaan waa ngoog am na nu mbégte ñu ngi ñaanal képp koo xam ni yaa ngi doon suivre waxtaan wi bég nañu ci ñaan yi bég nañu itam ci ni ngeen ñuy souhaiter joyeux anniversaire di ñu ñaanal ndax xam nga sunu anniversaire suba la macha allah yal na yàlla barkeel ñëpp anniversaire bi nag kado yi gisaguma ko waxoon naa leen kado yi na ñëw kado yi gisaguma ko waaw kado yi na ñëw anniversaire day ànd ak kado anniversaire day am cadeau am am am euh, gato am sondeel anniversaire daal yii lay am waaw yàlla defal ñëpp jàmm yal yàlla defal ñëpp tawfiix ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam suba nag xam naa waxtaan yi du am waaw suba moom dañuy noppalu comme sunu anniversaire la ñu noppalu waale ndax dañuy sonn lool wax dëgg yàlla waaye bëgg lu leen bëggal ak lu leen wéttali ndax xate-xat yi ñëpp nekk ñëpp jaaxle moo waral ñu di ko def pour ñëpp delluwaat ci yàlla gën a bëgg fa tabaarakallaahu wéetaay bi sax wàññeeku ñu mën a dund yàlla tuuti mais bëggal suñu xol ci sayduna muhammad santir yonent bi loolu moo tax ñu di ko def macha allah ñu ngi leen di ñaanal di am mbégte ci ñëpp xam naa suba nag dañuy noppalu kon xam naa dañ leen di jox rendez-vous incha allah ban jour suba la lan samedi dimanche xam naa dañ leen di jox rendez-vous dimanche incha allahu taala yal na yàlla defal ñëpp jàmm waaw yal na yàlla na yàlla yal na yàlla wéral ñëpp waaw na yàlla may ñëpp wér gudd fan waaw na yàlla defal ñëpp tawfiix ku nekk daal fa nga nekk maa ngi lay ñaanal yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla may wér yal na la yàlla boole ci milliardaire u Seydina Muhammad yi yal na leen yàlla boole ci milliardaire u Seyduna Muhammad yi maa ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla defal ñëpp tawfiix kon nag ma jox leen dig daje dimanche incha allahu rabbi ndax suba la samedi te suba dañuy noppalu ndax bi jàng ci daara ji dañ daan wax ne jàng day am àllarba jàng day am àllarba moo tax ñu bëgg a noppalu suba incha allahu taala dimanche ñu dellu siwaat vingt-deux heures waxtaane yàlla waxtaane sayduna muhammad alayhi salaatu wa salaam numéro bi 77 485 sama numéro téléphone 77 485 88 38 amul whatsapp nag numéro téléphone daal laa am ku ma ci woo di nga ma jot maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Abdoul Aziz Fall bu Al Amin ñaanal ko moom itam yàlla na ko yàlla yokk dëgëral na ko yàlla barkeel nuyu mbooleem soppey Seyduna Muhammad yëpp yal na yàlla kattanal leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla aar leen yal na yàlla barkeel leen juzitum xayran wa kufitum charran wa yuctikum mayran wa yansurukum nasran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu